waaw Simon ñu ngi lay nuyu. waaw waaleykum salaam maa ngi fay. ñu bëggoon xam rek sa présence fii ci conférence de presse libération di Nit Doff. waaw présence bi je crois que amul sikki sàkk c'est venir soutenir Nit Doff c'est venir euh, dire qu'il mérite qu'on le libère que tey deful loo xam ne mérité na ñu koy dugal prison comme ni mu ko waxee sànq ci sama prise de parole mooy su fekkoon am na ay député yu fi jëloon kàddu di saaga président de la république cette institution du Sénégal am na ay député yu fi jëloon kàddu ne dañuy jël jaase dem xeex contre le troisième mandat am na ñu fi jël kàddu saaga ay xeetum lëmm defuñu leen lu ñu leen def lu ñu def ni dof bu doon ñooñu dañ leen def lu ñu def ni dof amaana ñun fii duñ fi toog dañuy nekk kon nañu bàyyi justice bi def liggéeyam mais Nit Dof n'a pas fait quelque chose qui mérite cette incarcération qui mérite tous ces chefs d'accusation yi nga xam ne dañ ko def ci noddam donc maa ngi koy wax ne yàggul dara dañu rencontré dama bokk ci artistes yi président mais bi ñuy wax ak président dañ ko wax ne tey dëkk bi bëri na tension te tension yooyu arrestation abusive yi ci la bokk di emprisonné ay activistes parce que dañu publier ci réseaux sociaux yi di bun xatal ay journalistes et cetera mais bàyyi leen ñu ñibbi seen kër jox leen liberté provisoire au moins tension yi dégonflé maintenant bi mu ñu accordé loolu et que deux semaines après ñuy jàppaat keneen muy ni dof mais c'est un mauvais message qu'on lance parce que ñaanuma ko yàlla tey le de s'organiser Kill Family s'organise, Gunzal s'organise. Nidof, c'est des centaines de milliers de personnes derrière. On appelle à une manifestation. Moi, un débordement. Moi, aïe, Kenya nous koyal, aïe blessure, aïe gagne gaañu etc. Mais pourquoi Mais parce qu'on a arrêté une personne abusivement. L'autre, la nuit bagne. Donc, l'autre, nous, ce qu'on peut dire, moi, il va y avoir une liberté provisoire bu ñuy déposer sous peu. mais li laahi war a suuli nañu bàyyi jàmbur mu dellu këram parce que deful dara te bu ñu waxee ne dafa saaga wala dafa am yenn affaire yu mu def mais quelque temps après dafa excusé wu toogul sax 24 heures pour excusé wu donc ñun 2012 amul lu ñu deful ak Macky Sall président Macky Sall ci boppam moo fi doon ne si Wade persiste on va aller le déloger moo ko wax du keneen du ministre ko wax président de tous les sénégalais jamono ji moo doon waxee kaa déloger lan la déloger c'est violent quand même tu vois on l'a pas arrêté donc si son sur son magistère nii nii nii warul accepter ñuy arrêter ay artistes ay activistes wala ay journalistes ndax yenn déclaration il faut qu'on soit aussi un peu sérieux te comme ni ñu ko waxee dëkk bi mu ngi ci benn tension boo xam ne dégonflé ko la ñu soxla soxlawuñu leneen di dof c'est pas juste un activiste wala quelqu'un qui engagé politique alalu hip hop Sénégal la te hip hop Sénégal tey li muy réclamer à travers ñëpp ñi fi nekk de Ndongo Daara ji à à à Ngaaka Blindé suñu rak à Yanko suñu rak li muy réclamer mooy la libération de Mortala Gueye et nañ ñu ko accordel est-ce que nekkul ne wax nga ko sànq bi leen président recevoir bi ngeen génnee nit dof daf leen clash te tey gis nañ la fii tey nga ñëw pour défendre mu ngi mel ni mu mouvement hip hop bi benn la est-ce que nekkul lim leen clash noonu bokkul loo xam ne moo gën a yokk xar mi karaw. je sais même pas comment répondre parce que ça n'a rien à te man jàppewuma ko clash dafa joxe avis et peut-être xamul contenu bi bu xamoon contenu lu ñu fa defee woon xëy na peut-être du waxee noonu mais loolu c'est pas important gisoo ci chef d'accusation ne dañu jàpp nit daf parce que dafa clash mouvement hip hop c'est pas vrai te même même bu amoon yoon la ñu nekk fii et yoon la tey ñu taxawee tànk bu ñuy taxaw ni parce que moom ñun bi ñuy nekk ndugu siin tànk bi la taxawee si ñun c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense mais je crois que quand tu lui expliques et que tu lui dises la demain voici les acquis voici pourtant les gens sont sont partis après day day day day day day wàcc quoi te day comprendre quoi mais ça c'est pas la question les deux questions n'ont rien à aujourd'hui dañ ko jàpp par rapport à un live qu'il a fait di métitlu ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau télé yi di wax ci ay troisième mandat naan dañ ko war a autoriser il est question de ça et personne n'est d'accord avec ce troisième mandat personne n'est d'accord amul raar na sénégalais xanaa sénégalais yi nga xam ne tey troisième mandat boobu day day maanaam euh, tooyal day yokk ñeex ci seen ay cin. wax ngeen ko Macky Sall bi mu yi saa tey daf quoi rendez-vous bi du du du recevoir Macky Sall tey rendez bi Mor Talla la quoi kon nañu yem ci Mor Talla moo gën a nice je crois moo gën a nice Macky lu ñu ko wax moom xam na ko te ñi fa nekkoon xam nañ ko demuñu fa di fa nooyal wala di ko raay on a dit ce qu'on avait à lui dire et je crois si on n'avait pas dit ce qu'on allait à lui dire ci combat doo ñu gis dag ñu gis ñu ne wala peut-être da ngeen jàpp dañu dem <laughs> léegi bokk APR donc euh, nañu des ci Mor Talla la quoi l' important c' est qu'il soit libéré qu'il retourne au sein de sa famille looloo ëpp solo. seen plan d' action lan la. moom la ñuy waxtaanee ni